Amen. dunkaana am tumba kémbër ma sibtul xadimi am na ngeen gi am tumba kémbër sibtul xadimi am na ngeen gi ma jëf mbokk yi nga xamante ni ba tey yéen a ngi ànd ak ñun ci bis bi nga xamante ni ngi ko dëgmal mu nar doon ni ki ëllëg ak jàmm macha allah ñu taxaw ak euh, nag ñoo xamante ni kenn dootu leen présenté ti mën nañ ne ci wàllu wi ñu nekkee muy communication waaye rawatina lu jëm ci wàllu mouridisme macha allah ñu taxaw ak ñaar ñoo xamante ni ñu am xarañteef lañ ci li nga xamante ni mooy jataa yu mel nii waaye rawatina li nga xamante ni mooy liggéey bu tedd bi nga xamante ni axlu xasiida amal nañ ko ànd kook sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu suñu loxo ndeyjoor ñu feggoo ci ak sëriñ fallu Gala Silla mu doon koo xamante ni ci matière de communication kenn dootu ko ci présenté ci partout dans le monde macha allah suñu loxo càmmoñ it ñu feggoo ci ak sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Fallou Ndiaye moom macha allah liñ ko mën a bàkkee bëri na waaye bu ñëwee Serigne Fallou Ndiaye Touba ca rek bokk ci ñi nga xamante ni mën nañ ne ñoo taxawal li nga xamante ni mooy Touba ca kanam waaye yor ëttub yëglekaay boobu nga xamante ni ñu ngi koy woowee Touba info jii nag ñu ñëwoon na fii ci jaalibatul maraaxib ci mbaarum Serigne Massamba mii nag ñu taxaw ci ñu na ñoom it fa seeni ànd ak Serigne bi ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni saa su nekk niñ koy waxee rek mboolem axlu xasida wala mboolem murid yëpp rek dañuy jàpp ne liggéey bi seenub liggéey la ndax lu xasida yi murid yëpp ko war a màggal kon xam naa foofee la ñuy dékkee kàddu Sëriñ Fallou Gala Sylla mu def uh, ay jàngat rek ci bis bi nga xamante ni mën nañ ne bisub murid la waaye saa su nekk maanaam bis bi day gën a yokkute noo ne nag la war a mën a demee ndax bis la boo xamante ni màggalu xasida yi la waaye bis la bu ñuy yendoo jàng alxuraanul karim ak xasiida doon bis boobu Baye Fallou buñ ci teewee di ki waaj ñu koy séntu ni ki jàmm ngeen ñëw ni si tey si ci wàccaay wi fas yéene ko ànd sëriñ bi ban jàngat ngeen am ci liggéey bu tedd bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi alil asim eh, jërëjëfi sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba eh, damay jiital ci samay kàddu ab nuyoo boo xam ne eh, day tàmbalee ci sëriñ Amsatu mi nga xam ne moo woote bis bi jaar ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy borom yoon wi eh, di jëwriñ ji jàll ci mbooleem koo xamante ne bii yaa ngi yëngutu ci xasida ak wet goo ko mën a nekkee di sant bu baax a baax ci ñëw gii ñu ñëw ci bis bi nga xam ne dañoo ñëw tàmm àjjuma ji ngir barkeelu si ci eh, santaat ci sëñ Touba gën cee santaat sëriñ tuba ndax eh, sëriñ Amsatu jëlale naa ñëw ci quartier bi muy jaalibatul maraaxib man yaakaar naa ne eh, tur woowu ku ko xam dëgg rek jar na ñëw ci quartier bi waaye taxaw ci mbaar mi nga xam ne moom la duppee sëriñ Masamba mi nga xam ne yitteem jëpp ci xasida yi la woon mu wut nag bis boo xam ne su fekkoon ne àdduna xam nañ li li li li ci bis bi wallaahi kon adduna bépp danañ maasandoo jóg ku denc dara danga ko génne ndax ku am jàmm xasida yee tax ku am jàmm ci àdduna rek fii ñu toll xasida yee tax eh, xasida yi day mbir moo xam ne lu ci nekk ak ko Serigne Touba defloo boo demee ma ngay liggéeyloo waa alxuraan ci genn wet di liggéeyloo waa ma ci genn wet waaye eh, ci ni ma misaale bu doon jëmm la dama naan bopp bi mooy alxuraan loxo yi mooy hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mooy ponk yi ponk yi nga xam ne moom la lislaam di doxee ya ca des nag aju ca mooy la biir baag butit ya ca nekk ak nopp ya sax ca bopp baag bët ya muy yëpp ci matière bi yàlla sàkk doomu aadama ngir mu jaamu ko la bokk waaye mu nee nag xol ba wala ruux ga ruux ga nga xam ne moom la yàlla def ca jëmm ja te bu dañee benn cër duutu jëf ruux ga mooy xaside yi ruux ga dëgg mooy xaside yi moo tax jëmm ji di dox ndax gis nga xaside yi boo delluwaatee suñu laay sëriñ Touba bi yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki ma gënal ci li ma bind mooy ki ma gënal ci li ma bind maam bu ne woon moo ma gënal ci nit ñi yonent bi day yem ci nit ñi waaye lu yàlla bind eh, eh, yonent bi ci gën moo ci gënal yàlla sëñ Tuubaa dellu waxaat baat boo xam ne day mat a jàngat ginnaaw li yàlla bind lépp yonent bee ci gën sëñ Tuubaa ne wallaahu yansuru nii yàlla moo ma dimbaleel boppam wal xalxu lépp lu mu bind tatba'u nii dana ma topp dégg nga mu baax baax sëñ Tuubaa moo ne yàlla boo wax ne li ma bind yonent bee ma ci gënal sëñ Tuubaa ne lu yàlla bind dana ma topp wal xalxu tatba'u nii fil barri wal bahri jéer ak géej gi moo am waaye booba saa naf xen bi laa dara rin dañ may fekk moo xam ne njariñul kese laa lu ànd ak lor njariñ lu àndut ak lor nag moom la def ci biir xasidaam yii man ne man damaa wax ne ñi yor daaray tarbiya di tarbiya ñi yor daaray alxuraan di jàngale sëriñ Amsatu mi yor daaray xasida di ci liggéey su fekkonte ne bi seet nañu ruux yi amoon na benn appareil boo xam ne mooy seggat ruux yi ruux yi sell bu fa jaaree mu mu marqué ne ruux sàngam je pare na dutu yàqu danañ gis nangami junni junni ruu yu sell yoo xam ne xasida yee tax ñu sell ci sëñ Amsatu tax ñu ñu bokk ca ñooña yoo xam ne weesu nañ yàqu saytaane mënatul si ñoom dara adduna mënatul ci ñoom dara bànneex mënatul ci ñoom dara lay ànd ak adduna ak bànneex lépp it mënatul si ñoom dara te ñooñu lan moo leen sange loolu mooy xasida yi te ku leen intégré ci xasida yi mooy sëñ kon moom liñ koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla yàggal yal na ko yàlla dooli wér yal na ko yàlla dooli kattan te it eh, fexe na ba wala boog sëñ Touba dimbali na ko ndax loolu du pexe sëñ Touba dimbaleel na ko boppam ba amutu jot ci lu dul xasida yi maanaam sëñ am sa amut beneen programme bu toogee mi ngi ci xasida yi bu tëddee mi ngi ci xasida yi buy buy wax ci lay wax maanaam léppam lu muy def li sëñ Touba waxoon ne. billahi lasi la ilaha illa huwa hayaati wa mamaati wa harakaati maa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sañam sa mën naa ab loolu waat ci yàlla ne samak dund ak samak yëngutu samak dal ak samak faatu lépp jox naa ko sëñ Tuubaa ci biir xasida yi loolu moom mën na koo garanti te nag xasida yi day cërub boppam boo xam ne da cay am xaas waaye ni mu mel ci xasida yi da mel ci alxuraan maanaam doomi sëriñ Suhaybu ju jàng alxuraan ba mokkal ko sëriñ bu sëriñ ab sëriñ Saliou jëlal ko boppam sampal ko daara fab limu téeméeri gone wala lu ko ëpp teg ci loxoom na ko ñii damaa bëgg ñu man alxuraan sëñ bi kooku sëñ daara la bu ñuy wut bu ñuy wut euh, élément yi nga xam ne ñooy ñooy ahlu quraan nga xam ne bu alxuraan di wax naan sama ñooñ sëñ sëñ am satu da cey bokk waaye bu xaside yi jógee nag li sëñ Tuubaa waxoon ne kuy jàng alxuraan bokk nga ci ñooñ yàlla waaye kuy jàng xaside yi bokk nga ci sama ñooñ sëñ Amsatu day bokk ci ñooñ yàlla bokk ci ñooñ sëñ Tuubaa te bokk ci ñooñ yàlla doy na sëkk waaye boo bokkee ci ñooñ sëñ Tuubaa nag dootoo mën a génn yàlla ndax liggéey bu muy liggéey te moo ne li yàllay fay kuy tërbiya muy defar ay nit ci ci ay cëram bu ci yàllay fay du fàtti sëñ Amsatu àll bu ne dem na fa wut fa ay tool àll bu ne dem na mais bu fa demee la muy investir ci àll ba moo lay xamal ne suuf si mënu koo génne xanaa suuf sa doon génne jamaa am na foo xam ne la fa investir bu suuf sa génne wut jamaa du ko fa am bénéfice waye nak amna fa bénéfice bu ëpp jamaa moy bam doon wut ca yàlla loolu la ko fa yàlla defal kon yaakaar naa ne waajtaay wi nga xam ne bis la boo xam ne kenn moom ko kuréet xasida yi te xasida yi sëñ Tuubaa waxal boppam ne yonent bi nee na mooy sama mbég te isa katabtu ihtasa arshal baaxi wa sabahat malaayku tibaaxi nee na bu ma toogee di ko bind malaayka dañuy sabbal aras di jaayu kon bis biñ defal xasida yi da ngay jàpp ne men malaaka du des malaaka yëpp ay teew àndandoog seen i junjuñ nag di ko tëgg na ginaaw ñoom dañuy sabbal te sàbbaalug malaayika moo dàq réeti goo ma sa dégg ci àdduna kon nañ jàpp ne bi murit yi jàng xasida eh, malaayika yaa ngi ci seen wet di sàbbaal waaye arasit it nag ma ngay ma ngay ma ngay yëngatu yëngatug aras mooy peccum nitug yàlla yëngatug aras mooy peccum nitug yàlla di di ca bég loolu kon na nga jàpp ne day am ci bisu xasida yi kon daal eh, maa ngi siyaare mboolem ahlu xasida ak fuñ mën a ne di ñaanal sunu njiit ñun ñëpp di sëriñ Amsatu yal na ko yàlla gën a dolli aw fan yal na ko yàlla gën a dolli ak wér yal na ko yàlla jàppaleel boppam ba ba àggale ko fi mu jëm te men ndog bañ caa am ci barkeb maamam Cheikhuna Ahmadul Khadim barkeb sëriñam sëriñ Touba eh, di santaat bu baax a baax eh, taxawaayu mm, Touba Vision nga xam ne eh, Touba moom benn vision la am Touba moom benn vision laam mooy àjjana la jóge fa la jëm garab la gu sax ci àjjana benn bëtam lay xool àjjana la koy xool kon Touba bu visionné xasida yi jaanam wàcc na kon ñoo ngi lay ziar di saar sëñ Xaadim Seck xanaa dernière laaj bu lu gàtt rek sëriñ bi ginnaaw bi mu ko wootee ànd koog waa axlu xasida waaye niki noonu lit la ko ànd ak ay mbokki boppam yi nga xamante ni mën nañ ne axlu Mbàkke ñëpp sëriñ bi daf leen a jébbalaat liggéey bi ànd koog ñoom waaw xam nga axlu Mbàkke moom mooy axlu xasida axlu xasida mënut a beru axlu Mbàkke de beru bu xasida amee ba mel nii mu mel Mbàkke tax bu Mbàkke melee nii mu tax melit xasidaa tax kon ahlu Mbàkke mooy ahlu xasida kon amul kenn ku man a sant Mbàkke ku mën a génne sa bopp ci bisu xasida bi sëñ sa tuyit mais nooy man a sant Mbàkke te seqoo koog moom bu dee bu dee bu dee bu dee ci wàll gu mën a doon sëñ Touba moom ñaar la bu dee Ahmadou Bamba waxuma nag xaadimu rasul waxuma borom Touba daa am ñaar Ahmadou Bamba doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ak Soxna Jaara kooku moom nit la ku ami mag ami rakk ami bajjan ami baay am lépp bu dee xaadimu rasul jaamu yàlla bu doon jaamu yàlla ba di abdullahi wa xaadimu rasulillahi loolu beneen garaat la du du turu nit turu garaat la bu dee borom tubaa nag ku yàlla faye ab dëkkam la muy ñetti turam yooyu bu dee abdullahi nag nga xam ne mooy ahmadou bamba mu néew coo bokk te doo bokk ak sëñ am satu mu néew bokk te bokk moom benn mbakkee la ciy dugal di maam ma xaram wala buso dugal la ci di sëñ busoo bi moom busoo mbakke la kon moom sëñ tubaa mooy mooy ndox mi mooy deret ji kon képp ku bokk ci maam ma xaram te ba noppi mu yor ji ci jikkoy boppam yor ci jikkoy boppam mooy ku ko mag jox na la cër bi nga ko magee kum mag ku ne yërëm na la ba wàcce bopp ngeen maase kum tollal ku ne jox na bàyyee na la sa daraja di déplacé wu di fekk nit ñi damay wax ne sëñ Amsatu li yàlla dogal barkeb xasida yi di ko andi ci moom barkeb xasida yi laa wax nag lu dul xasida yi nag xasida yi la ëpp barke ku ko wedd laaj ko ko moom moom xam ne ne xasida yi ëpp barke ci àdduna waaw sëriñ bu mu mën a doon ci àdduna rek xasida yi la ëpp barke boo mën a doon moo la ëpp wër sa git waaye gis nga li li ko lii koy dikkal mu wër ko ne xasida yee ko ci indi da koy delloowaat ci borom xasida yi amul kenn ku sant Mbàkke koo xam ne xam nga sëñ am satu ci sequ leen teraanga ju bàyyi ko moom ñëw ci yow amul benn jaamu yàlla it boo xam ne jàkkaarloo nga sëñ Amsatu yitte andi la fi te yitte jooju fajugut kon moom faw ay bokkam nag faw ñu noo ñëw bu dutoon xaside yi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk mu nekkal leen ci waaye jikkoy boppam may na ko bu wootee ñëpp fekk si ko loolu daal yaakaar naa ne mooy. macha allah sëñ Fall genn kàddu rek eh, ci bis bu mel nii eh, yàgg na ngeen a teewe ci xeetu bis yu mel ni muy màggal muy journée xasida waaye bis bi eh, fii ci biir Touba li nga xamante ni ñoo fi daje ci ay mbokki taalibe ci ay murit nga xamante ne fenn fu nekk la ñuy bàyyeekoo ci àdduna bi di teew ci bis bi loolu mu doon beneen beneen beneen jàngat boo xamante ni du ñàkk sëñ Fall ngeen jàngat ko ci bu baax a baax ci murit yi daje gi nga xamante ni moom la ñuy dajaloo fii ci Jaalibatul Maraaxib. waaw kay jërëjëf ñu sant bu baax Eh, di leen gërëm ci jotaay bi eh, bis bii nga xam ne Serigne Amsatou daf koo woote eh, jëmale ko ci xasida yi day bis boo xam ne képp kuy murit dalaa war ndax xasida yi moom ku ko yëg ak ku ko yëgut mbir la moo xam ne ñun sunu génération mën nañ ne xasida yi ñoo ñu defar ndax kenn ku ci nekk ci ñun ci sa ginnaaw am na ci loo xam ne buñ la ko nettali doo bëgg ñu nettali la ko waaye dem nga ba yëg ne xaside yi dinañu ñaan ci yow lool ba tey ku la gis day jàpp na sax yow ba nga juddoo ba léegi nii nga mel te loolu xaside yi ñoo ko def euh, kon nag euh, bis taxawal ko ngir delloo njukkal xaside yi loolu moom ñëpp la war kon am sa bu ko defee defal na ko ñëpp moo tax su ko wootee fu am murid nekk ci àdduna bi soo ñëwit fa nga nek mom da nga yegg ne tay bisu xasida yi la ndax xasida yi mom lu ñu war a la kenn ku ci nek ndax euh, ku ci nek defal na lo lo ne wóor na la buton toon yi do am lolo moy ci saayir moy ci baatin kon nak dañuy sant señ am su bu ñaanal suñu borom moy ko fanu guddu ak wer ba li nga xamne mu ngi koy liggéeyal Serigne Touba muy liggéey bo xamne gënu ko kawé mu yag ko def te ànd koog mbooleem waa ahlu khasside yépp yépp yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew ndax lii daal bu fekkente ne bii sax na li Sëñ Tuubaa bëgg ci ndaw yi moom incha allah danañ ko am muy ak defaru te defar moom dara gënu cee gaaw xasida yi kon nag ñu ngi ñaanal Sëñ sax ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ànd liggéey mi mbokk mi muy waa ahlu xasida ñoom ñëpp yàlla na Sëñ Tuubaa nangu seen lépp te barkeel ko te lii it mu doon loo xam ne day law fépp bisu xasida yi moom bis bu ne rek muy am fenn rek ak defaru rek la ci doon ci àdduna ak ak ak àllaaxira sant bu macha allah jërëjëf Serigne Fallou Ndiaye ci kàddu yu matala yooyu mbokk yi fii rek la ñuy yemande di leen jox dig daje suñu yeneen élément waaye ba tey di jaajëfal Serigne Mbacke Mbegere mi nga xamante ni moom la bi kon xam naa ne suuti kon ak suñu yeneen élément fii ci Diallo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu من أنا ذلك